ñëw ñëw ma lu fi rek benn école mais dama fi ñëw ak sunu moroom yi nga xamee ni ñoo nekkandoo ci privé yi du Sénégal ñun nag dañuy def euh, liggéey bu am solo dañuy former ay sénégalais di former ñoo xam ne si nek nañ ay autorité ci dëkk bi di wax ni ku ne enseignement privé dafa nekk enseignement boo xamee ni si ñi ñi nga xam ne am suñu diplôme état jot jotu ñoo jël ñoom ñu jël ñuy liggéey ak ñoom donc liggéey bi nag kenn mosu ñoo dégg sax ñuy def ay ay ci prêche yi mais dañoo am luñ dundu lu ñu xaw a parce que l'État état bi bi feebar bi amee ñu tëj suñu structure ñu ñu comme sénégalais di mais euh, son excellence le président de la république ñu koy nuyu au passage génnee 100 milliards 1000 hmm, milliards ni day jàppale secteurs yi ba di sax culture ba di éducation mais ñun donc boo gisee culture 3 milliards la leen jox moom 1 milliard jox ko éducation 1 milliard ci 2835 écoles lol day touti parce que ku ci nek boko joxé dina am 350 000 te amna école yo xam si li ñuy dépenser par euh, par fin du mois mën nañu am na ñuy dépenser ay 1 million 800 000 ba 2 millions et cetera am sax yu ëpp loolu kon bo leen joxé je pense que ni loolu je pense est-ce que dina mën fay sax loyer liñ bëgg ci mom mom mi nga xamé moy mooy suñu président nañu jappalé xëy na bi bu ko mëne gëna fructifier fexé ba ñun waxuñu ko mu def li mais. ñun ñi ngi nekk ci comme ay sénégalais la ñuy formé ñu ngi ci suñu bopp parce que même presse jot nañu hmm? te presse bañ koy séddale ku ci nekk kii lim am ak kële lim am bokkul te ñun ñëpp lan la ñuy def dañuy dañoo dañuy former ay sénégalais parce que ci presse sax mun nga cee mun nga cee yar ay nit la di joxe la bonne euh, communication ñun nag ay sénégalais la ñuy former sénégalais yoo xam ne seen parents yi ñoo opté école privée parce que école privée amul grève amul absenté da ngay ñëw ñun ñu fay nekk di jàngale on u surveille comme du lait sur le feu te chaque année dañuy def de bons résultats looloo tax nag askan bi soxla ñu mais bu ñu demee ba ñun ñi nga xam ne ñun ñoo nekk ci école bi di souffrir amatuñ salaire donc mel ne ñun daal dañ ñoo li sama benn collègue di wax naan ku mu am nday ak ku moomu amul nday bu nekk mu am nday mooy école publique parce que école publique bi ñu bari tey seen grève yi mooy ay 10 mille francs ay 5 000 yokk leen ko te ñoom état moo jël di leen fay ñun nag dañuy liggéey ak bi ñun pare nañ bu yàgg parce que ñun année blanche bëgguñu ko am na ñoo xamee ni sii nag ñi ngi ci beneen secteur bi xëy na ñoom ñu wax ñu parfois bëgguñu dem ci classe yi mais ñun ñi nga xamee ni ñoo nekk ci secteur privé ñu nous sommes prêts pour dugg ci classe yi jàngale parce que ñun jàngale moo suñu métier boo xoolee école privée yi seen logo seen seen seen seen seen logo yi locaux yi donc boo ko teg yeneen yi parce que foofu dañoo jël seen i mesure même bu amee ay forte pluie ñoom dinañ mën a résister xale am benn problème amna école yoo xam bu fa démé donc mën nañ wax ni le décor dafa am solo toilettes yi c'est bien équipé amul amul ay comme niko gaay di dem dugg fi dugg feulé lepp dañ ko teg ci yoon mais amna école yo xamé ni si nak ay école la yoom si ay école publique la mais fofu bo fa duggé bo duggé ci toilette yi parfois sax sa yaram day daw donc lool nak dalul école privée école privée dañu jël seen i mesures yu am solo ku ci feebar euh, euh, maanaam am na ñoom si dinañ la jël def le prise en charge ci loolu ñun nag pare nañ pour dellu ci classe yi même sax ma gis le président de la République bu ñu joxul suñu subvention ñun ay sénégalais la ñuy former dama bëgg wax rek ni ñi mu jox ay aide gënuñu ñu parce que ñoom dañuy liggéey yor seen liggéey ñun tamit dañuy liggéey ñun amuñu lu dul jàngale te ay sénégalais la ñuy former di leen jàngal ci savoir vivre savoir faire savoir devenir ñun nag comme ni gars yi di grévé duñ ko def du ñu génn fenn di taal ay pneu wala sax di def ay manifestation yu amul ben njariñ le euh, euh, borom xam-xam bo xoon rek ni écrire c'est se jeter au champ de bataille képp ku jël parole rek da nga bëgg convaincre ñun xëy le président de la république moy suñu président mais bo xolé dafa melni ñun daf ñoo faté li olaf naan ku moom mu am nday ak ku moom mu am nday école publique mom moy ku moom mu am nday parce que tay lu leen metti lu tout rek ay 1000 parfois ça ay 5000 bu leen ko daggé ñu génn grève mais ñun je pense que ni boobu ba tey yéen a ngi ñuy commencé dégg parce que dañoo toog 3 mois yoo xamee ni si suñu élèves yi ñëwatuñu te élève bu amul euh, daanaka euh, nit dafa am solo ci élèves yooyu li ñuy fay ci lañuy ñuy fay loyer ci la ñuy fay personnel yi dem nañ mag ko ontuñ loolu nag am na droit ñëw ci presse joxe suñu point de vie du ñu saaga du ñu xuloo mais dañoo bëgg président de la république dégguñu xam ni ñii muy dimbali gënuñu ñu